murtajan minnatun lana jariun auzu billahi min seytaani rajim bismillahi wa rahmatullahi wa mbokk yi nuy seetaan te di nu déglu dellu siwaat nañ suñu jataay bi ñuy wax madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu sit bi ñuy wax 24 actu ñuy nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuy déglu ak di seetaan di ñaan yàlla defal leen jàmm ak tawféex yàlla defal nu njariñ ci wax ci ñuy wax yéen ñi koy déglut yàlla defal leen ci njariñ kon ñu ngi siyaare mboolem umma islam bépp bàyyiwun kenn ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew te dinu seetaan dinu topp ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax a baax ci gis nan ngeen di participer ci jataay bi ak xalaat yi ngeen di dolli yal na yàlla fay leen aw yiw tey ñu dellusiwaat ci benn tomb bu itteel boo xamante ni jàpp naa ne danoon ci mën a jariñu xañ na su fekkee yàlla dogal na ñu jekk waxtaan wi tey dañoo bëggoon waxtaane <clears throat> doomu aadama <clears throat> sutura si nga xam ne war na koo sàng mbokkam mbo doomu aadama wala sutura si nga xam ne yàlla sàng na ko doomu aadama te nu gis na nit ñi léegi li gën a bari mooy xawi sutura si jàmbur loolu nag dafa mel ni dafa xew doon phénomène boo xamante ni gis nañ ne lu bare bari li ciy juddoo ay bàkkaar yu bari moo ciy judd moo tax tey ñu bëgg cee waxtaan waxtaanu wu boo xamante ni dañ ciy dellu rek liñ ci jublu nag mooy fàttali sun bopp fàttali ci képp koo xam ne yaa ngi jariñu ci waxtaan xam ngeen yàlla de sutura su su yéeme la sàng doomu aadama doomu aadama nag warul sutur mbalaanam sutura moom mu ko yàlla yiir moom mu koy summi walla keneen di ko summil jàpp naa ne bu fekkoon summi sutura jàmbur yàlla moo ko war a gën a dàq ñëpp moo ko war a gën a man ñëpp ndax moom dafa xam lépp dara umpalewu ko li doomu aadama ji di def li muy bëgg a def sax yàlla xam na ko kon yàlla bu fekkee ne moom moo mën a suturaal nit doomu aadama ju nekk war ngaa jàng ci yàlla wala war ngaa toppe ci yàlla jéem a suturaal sa mbokkam julit wala sa mbokkum doomu aadama sa mbokkum nit rek danoo gis nag ne ay njuumte yu bari daf ci am ci ñi sàngi sutura si jàmbur te yonante bi salaa salaam daana wax ne nit ki bu ko yàlla sàngee sutura na sàng boppam sutura gis nga léegi di nga gis nit koo xam day def benn bakkaar moom dong moo ko defoon ba koy def fekkewu kenn fekkewu ko waaye bu xëyee wax la ma doon def wala mu koy nettali di ci puukarewu fekk na yow yàlla dalaa sàngoon sutura bi nga koy def kenn yëgu ko kon waroo ko wan a nettali kenn sunu borom ci xereñam yonante bi salaa salaam nee na ëllëg yamal xayaam nit dina def bàkkaar yàlla sàng ko sutura sàng ko sutura ba ëllëg yamal xayaam yàlla di àtte jaam yi dikk ba ci wetam mu ne ko yow de yaa defoon bàkkaar sàngam ak bàkkaar sàngam ndax kenn yëgoon na ko mu ne ko déedéet mu ne ko tey loo bëgg ma def la ko mu ne ko dama bëgg rek nga sàng ma sutura mu ne ko dinaa la sàng sutura na ma la sànge woon sutura ba kenn yëgu ko du ma dikk ba yombal xiyaam may xaawi sa sutura kon yàlla mi nga xam ne suturaal nit rek sun borom dafa bokk ci ay mbiram alxuraan day wax ne bu leen def tajasus tajasus mooy dem di yërndu nit ki ci lan la nekk wala lan mooy ay defam nga bëgg koo sànni bëgg koo wax nit ñi wala nga bëgg koo weere Seydina Omar mas naa fekk ñuy naan mu dégg leen ñu yëngatu mu xam ne ñii li ñuy def jubul Seydina Omar ñëw bëtt buntu kër gi bi mu dikkee tamit daa di fëggut dafa dikk rek daa di ubbi bunt bi dikk fekk leen ci biir fekk leen ñuy naan luñ tere Seydina Omar ne leen yéen li ngeen di def nag am kenn ku ca jóg na ko amirul na ñun de def na dara waaye yow def nga dara mu ne ko lan laa def mu ne ko alxuraan dafa wax ne bu leen di tajasus nit ñi ba xam lu ñuy def beneen bi ci des alxuraan nee na bu ngeen di dugg ci buntu kër jàmbur na ngeen ci kër jàmbur na ngeen jaar ca bunt ba te yow bi ngay dëkk da ngaa miir bi beneen bi ci des da nga noo tajasus ba xam li ñuy def nga dikk ci Seydina Omar na ko waaw wax nga dëgg waaye bàyyi leen li ngeen di def waar leen comme kooka la yonante bi ku eh, alxuraan di tere mu tajassus ak di ko tere yooyu waxantuma la ak keneen danoo seetlu na ne nit ñi nag dañuy def ay yu bari fan yi rek coow yu baree bari da koy dégg eh, koo xamante ni day wax ne diw sàngam nangam la benn mën naa wax ne nguur jigéen la wala mu ne nàngam la wala nàngam ak nàngam wala mu gis ay nit xew-xew yi gis ngeen ko fan yi ay nit ñoo xam dañ leen di wane ci internet bi ne ñaar ñii da dañ doon mooy yàlla ay góor ak jigéen dañ doon jaxasoo loolu àtteel lislaam war na cee tàbbi ndax ah, lislaam li mu bëgg ñaar ñu jigéen góor ak jigéen juy njaaloo lislaam lim lay wax rek dafa laa wax ne la kenn waru koo wax sax daanaka lim ko waxee mooy kenn waru koo wax mooy bala ngaa wax ne ñaar ñii dañ doon mooy yàlla dañ doon njaaloo mooy ñeenti góor yoo xamante ne ay góor lan ay muskàllaf lan ñoom ñëpp ñu dikkandoo ci mbir mi wala bu nu dikkee ku ci nekk fekk nga waa ji nekk ci kaw soxna si te wax nan ne loolu rek du doy ñoom ñeent ñëpp ku ci nekk dina tegandoo ci seen bët masala kuur gi di dem ci gën gi ci teggin loolu bu fekkee kenn ñett ñi kenn nee na gisu ko sax moom ñi ci des dañ leen di dóor yari yoon jàpp naa ne loolu ba histoire amee ba léegi ku mas a teg sa bët ci loolu amul wala boog néew na lool histoire wala téere yi wala boroom xam-xam yi nettali ko kon loolu li ci sun borom jublu mooy kon loolu dafa wax lu wut kenn waxu ko rawatinaa nag nga mën a taxaw ne ñii ñaar dañ ko doon def yow bu lislaam àtte lislaam doon dox dan lay woo ne la waaw yow li nga wax ne ñaar ñii dañ doon kii ndax yaa ko gis nga ne waaw doonte ci sa soxna nga ko fekk sax waroo koo jébaane donte ci sa soxna nga fekk loolu boo demee di ko wax te ay témoin dañ laa war a dóor juróom-ñett fukki yar dan laa war a dóor ay yar yoon kon lislaam dafa wane na loolu waxut rawatina doomu aadama nag ak njuumte yi ko yàlla binde ak ni ko yàlla binde ci salu bu fekk ne ku def njuumte wala nga def bàkkaar dan la ko won wala yàlla suñu borom mi nga xam ne day gis ñëpp bu fekkoon ku def bàkkaar wala ku def mooy yàlla mu saxalal la béjjën jàpp naa ne ñu baree baree bari dinañ gis ne ñu ngi def ay njuumte ñu ngi def ay ay moy yàlla yàlla mii suturaal nit ki nag moom bëggul kenn ku xaawi sutura jàmbur ndax yàlla dafa suturaal nit ki su ko neexoon loolu mu teg atte boobu yonante bi su neexoon yàlla suñ borom mën naa dajale ñeent ñoo xamante ni duñ bokk fu ñuy jóge ay góor lan ay mu la ñuy doon ay góor lan ñu gisandoo mbir mi waaye yàlla dafa bëgg a wane ne wax lu wut mbir mi mbir mi mbiram ña ko def la ñi ko defit yàlla mën naa dem ba jamono ñu tuub ndax kenn jukki jikkuwul rek baax baax du nit ki day xëy xëy rek baax bakkaar yi mu def doonte yi mu def sax ci lay jàngewaat ne ci la war a tuube bakkaar yi mu def ci lay dem ba mujj mu sippeeku teef yépp kon loolu ku koy def jàpp naa ne euh, euh, surtout liggéey boobu war ngaa xereñee am xereñ gi war ngaa am ikkam bi tamit war ngaa xam dara ci diine ndax diine dafa dafa sensible dafa bari yoo xamante ni daf caa noppiloo nit ñi waxloowu ca kenn lu ñu tuluwu ko kenn xolloowu ko kenn lislaam dafa am mbir yoo xam ne waxloowu ca kenn xolloowu ca kenn daf caa noppiloo nit ñi donte mun kar nag moom kenn bëgg ko kenn du ko favoriser kenn du ko def topp nit ki nag ay ay ayibam nga topp ko di ko xool di ko xool yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki ku topp ay ayibam di ko luñutu yàlla dina topp say ayib ba dina la topp ba ci sa biir kër mu toroxal la ci maanaam ku toroxal nit topp ay ayibam di ko xool di ko sulli yàlla dana fayu ci bis dana la topp ba ca sa biir kër sa biir njaboot sax mu toroxal la ci kon nit ñi danoo war a nëbbanti seeni ayib bakkaar yàlla moo ko yore moo koy jéggale moo koy baale donte nag ku nekk ikkamu yee nit ki ak jë soriloo ko ak mooy yàlla loolu ku nekk ah, loolu sa waru gar la warugar la mun munkar moom warugar la jullit bu nekk mu jóg fi waaye nag amaane di ci topp ba àgg ci foo xamante ni yow ci sa bopp yaa gën a yanu ka nga doon feeñal yaa ko gën a yanu bàkkaar ndax la nga def ci jëmmam bàkkaar la fii nit diw sàngam nga ne nangam la maanaam diw sàngam nga ne ab caga la wala diw sàngam nangam la diw sàngam ngóor jigéen la bu fekkoon ci réew yi àtte woo lislaam dañ lay wax ne la waaw kii lan moo tax nga ne nangam la nga ne ah moom de daa sol nangam wala daa def nangam wala daa déedéet lislaam loolu doyut lislaam da nga koy indil ay prof yu leer te prof yooyu dafa am xum la ci yemloo manoon na ne bu ko kenn gisee rek bakkaar la waa ji def danga koy duur wala dañ koy rey wala nangam waaye la mu wut lu ñeenti nit moo lay wan ne la loolu wax luwu ko ayib bi jàmbur tamit saa boo nekkee di luññutu ayib bi jàmbur li muy tekki mooy yow amu ayib mooy yow daal man daal deñ naa ci ayib bàkkaar daal seet na wicc ci man man awma ko nit ñi nag laay xool ba xam ñoom loolu la seeni bàkkaar foofu saytaane daane na la ñaari jël mooy fàtte nga ne am ngay ayib te kenn lijjantoowu la ayibi jàmbur kon sa ayibi bopp daf laa war a doy wala fi nag dañuy wax ne nit koo xamante ni euh, dafa yor liibaru baqata di xool ki nga xam ne dafa yor benn kenn waa liibar maanaam li bëgg a wax foofu mooy nit ki sikki boppam daf ko war a doy lijjanti sikki bopp moo gën ngay lijjanti sikki jàmbur sëñ Saaliw daana wax na yàlla su lay wax say sikk dafa bëgg nga tuub ko waaye doomu aadama su lay wax say sikk dafa bëgg daf laa bëgg a weer dafa bëgg a weer bëgg laa weer yàlla su lay wax ne la am ngay bàkkaar am ngay sikk daa bëgg nga tuub ko dellu siwaat waaye doomu aadama su la koy wax daf laa bëgg a weer loolu nag dafa jaaruwul nit kii tamit buñ lay wax booy wax ci moom ci mbir yu mu def yu bon yamal ci yu bon ya waaye amaana àgg ci diw sàngam nangam la tuddoon tuddut noonu noonu mu wax sax du turam loolu kenn du ko def yow mbir mi lan la àtteloo ci lan la yamloo waaye amaana di dugg ci nangam nangam la tuddoon tuddut nii loolu kenn du laajunu la ko leen la laaj mooy li mu def munkar bi mu def nan la def ba munkar boobu deñ waaye amaan na nii la tuddoon ak yooyu loolu passé la te nit kii tamit am na àq ci boppam bu diggee ay waajuram tuddewuñ ko woon tur turu baax moom su demee ba mësër ba xam turu baax mën naa tuddewaat boppam loolu àqam la bu ko neexee mu seet turu bu baax mu tuddee ko boppam ñu koy wooyee ndax nit ki ah, tur yi lay tuddee bu fekkee dem nga ba xam dara ci diine xam ne tur wi du tur turu baax nga sensé ko loolu ñëpp a koy def kum neex nga def ko waaye amaana nag Euh, nii nga tuddoon nii nga tuddoon loolu du àtte bi loolu tamit du du du du philosophe bi sax loolu li muy wane rek mooy nit ki li muy wax xamut moom sikki jàmbur la bëgg a jóg waaye delloowul nit ñi ci lislaam euh, bu delloo nit ñi ci lislaam danoo wax ne nit ki tey su fekkee dafa bëgg a takk jabar wala mu bëgg jëkkër wala nangam dikk ci mbokkam ne ko ah man de diw sàngam gis naa ko yéen a bokk fu ngeen di liggéeyee <coughs> waaye kooko damay laaj ba xam yow loo ci xam ndax yaa ma ko gën a xam soxna si xam nga ko xam ay waajuram xam ay baayam xam yaayam xam ay famem lin la sant lin la sant ci moom mooy soxna si ndax baax na wala jubut wala jub na bu fekkee xam nga ci moom jub nga wax ko su fekkee xamoo ko ci nga wax ca la nga ci xam ndax danoo dikk def la témoignage témoignage bi ñu la def war ngaa leeral foofu waroo lëntal waa ji ba mu dugg ci waaye nag amaana naa soxna si de ay maamam ay baayam ñi leen nekk woon ñoom de ay seeni cosaan nangam déedéet kenn laaju la loolu waa ji lan la laaj soxna si lan la laaj ku baax la ak nangam lan nga xam ci moom foofu ngay am waaye bul jàll waaye amaana yi jàll ci diw sàngam nii la tuddoon tuddut loolu loolu nit ñi ittewoo wuñ ko li ñu ittewoo mooy munkar bi nekk nan lañ koy saafara ak nan lañ koy laabira ndax diine a nasiha dana war a laabirante waaye kenn du ko dindee ci force te yow ci sa bopp nag war ngaa yëg ne li nga am ci bàkkaar bul ci xeeb benn benn benn bul ci xeeb benn loolu na la itteel na la soxal tamit li nga war a jàpp mooy loolu war na laa soxal waaye warul ñàkk a soxal gim la ñàkk a soxal mooy wane na yow defaru woo ku defaru sa mbiri bopp daf laa war a gënal ngay lijjanti mbiri jàmbur ndax ëllëg yomal xiyaam duñ la laaj mbiri jàmbur yooyu waaye sa mbiri bopp lan lay laaj donte nag laabirante ku nekk xam na ne war naa am nit ñi war nañ koo def dafa am ci teraanga ji doomu aadama yàlla bindale doomu aadama wala xadd karam naa benn aadama teraanga jooju kenn warut wàññi teraanga jooju ci doomu aadama doomu aadama suñ borom moo ko teral moo ko teral moom ci boppam moo mën a dem ba teddadil boppam waaye du nit moo koy teddadil nit ki koy teddadil na yëg ne moom mooy teddadil boppam ndax nit ki li ngay wax ci moom ciy sikk yow yëgal na lu toll noonu am nga ko ciy sikk wala lu ko ëpp ndax li ngay luññut ci moom di xam ay sikkam day wane na rek yow am nga sikk ku am sikk moom mooy lijjanti sikki jàmbur waaye ku sa sikki bopp doy nga war koo tuub war a laaj jéggal ba yàlla jéggal la ko ak taxawaay bu metti ba ak yomal xiyaam mbir yi ni muy raj rajloo yàlla di nit ku nekk ak boppam yow jàpp naa ne kenn du la ne rek leen diw sàngam donte ne lu bon moom dañ ko war a aaye ci bépp béréb rawatina sax bu dee ci dëkk bu sell bi dañ ko war a aaye waaye ikkam bi ci nit ñi war a am mooy delluwaat ci diine lépp looy aaye ak looy tere ak looy siiwal na nga ca dellu fu la ca diine yemloo nga yem ca waaye diine nanguwul nga sartaagal wala nga jàll loolu nag dafa mel ni nit ñi da nga dut yëg ne ngir yàlla moo tax ñuy wax maanaam weer ak xawi sutura jàmbur daanaka am na ci lu ci bari nag moo tax ñuy wax waaye nag du bëgg a defar du bëgg ki ndax nit ki moom bokk na ci moom bu defaroo rek daanaka li muy lijjanti lu yomba saafara lay doon moom na defaru ku nekk mu kii la nit ki tey bu ñu dikkoon la dafa def nangam nit ku bon la nit kuy def nangam la kuy naan sàngara kuy nangam lin la wax xabaar buñ la indi la nga ko war a taawil da nga war ne ah moom de xanaa dafa juum moom de dafa nangam borom xam-xam nee na juróom-ñaar fukki taawil nga ko war a taawil yu rafet ba soog a àgg nañ ci dayab soog koo mën a kii sëñ Fallou am na ku dikkoon ne ko ñii bu ñuy julli dañuy gaaw sëñ Fallou ne ko ah dafa bëgg rek dafa bëgg euh, daf ko bëgg a dafa bëgg kii rek bala caa dara yàqu rek ci julli gi. ñu ne ko kii da day def buy julli da koy yeexal mu ne ah da bëgg a jox àqam rek waaye yooyu mooy nit bu ñu lay wax ci nit nangam loolu nga war a def waaye amaana sa mbokkum jullit ni ngeen doon nga àttana sa meeku bàkkaar bu mag nga yan ko ko te loolu xoolal baat yooyu ni mu rëyee diw sàngam ngóor jigéen la ndax moom la seetal sa digganteeg sa àqulaahi ndax loolu nga wax mën nga koo waat wala loolu nga wax am nga ci yàqin ju leer lislaam xamul ne ay déguisement wala ay nangam wala gis naa ko wala daf maa romb lislaam lu leer la bëgg lislaam li muy dox doxut ci loo xamante ni ay foog naa ak defe naa ak demale lislaam li muy def yàqin la ci am bëgg nga am mooy yàqin soo amul yàqin noppil tëjal sa gémmiñ Seydina Omar daana man bu coow amee de ña cay gën a mucc man Seydina Omar ci bokk dëgal Abdullah ibnu Omar nee na ñaar ñu xuloo sax duma ci wax dara ku ma laaj ma ne ceel rek ginnaaw yàlla musal na ma nee na bu nu mosaan di wax ci saxaba yi mu ne ah tee ngeen noppi ginnaaw yàlla musal nañu ci seeni jaas yi teem noo musal ci sunu làmmañ seeni deret yàlla musal nañu ci seeni deret nanu musal ci sunu làmmañ làmmañ nag dafa bari lu muy wax bàkkaar yu baree bari ëllëg yomal xiyaam sawara ña fa ëpp lu ñuy tàbbi ña ëpp ñuy tàbbi sawara seen ngóobiti làmmañ moo leen ko def rawatina nag ngay tuddoo diine yow ba noppi nag mën a jël nangam lu rafetul loo xamante ni boo ko wëndeeloon sa biir kër doo ko fa teg ci kenn nga mën koo wëndeel mën koo jox doomi jàmbur wala ab jàmbur bu juum bàkkaar ak njaalu kenn mënu ko jële ci ci ci ci doomu aadama kenn mënu ko cee jule ñun ñëpp ñoo war a sàngane sutura mbir yi nan ci seetaan ragal yàlla xoolaat ci yàlla fan la ñu toll xoolaat ci sunu defarug bopp bàkkaar bu nekk dañ caa war a defaroo waaye waru waruñu caa law law am na boroom xam-xam bu daan wax ne nit ki dina def bàkkaar mu ngi mel ni nit ku defoon bàkkaar masala yanu paanu xeer koñ bu mu romb rek ñu wax ca dara mu wàcce benn xeer fu mu rombaat rek ñu wàcce ñu def ci benn xeer nee na day mujj xeer bi paan bi woyof kon nag mbokk yi nanu sàng leen ci sutura nanu def sutura ku ci nekk na ëmbal sa moroom sutura yàlla ni mu formé doomu aadama xoolal fi ngay judd fi nga jaar fi nga nangam fi nga kii yooyu yëpp ñu lay sàng sutura ngay dem wala fi dañuy wax ne nit dëkk mag dëkk bu mu yendu bu mag yendoo jàmm xam na fa lu mu waxut fu jàmm yendu mag mu baax a fa yendu mu xam mu waxul xam lu mu waxut kon nit ñi nañuy sàng leen ci sutura di ko njëkkee ci sa bopp njëkkee ko ci sa njaboot li nga wëndeel ci sa kër amoo kenn koo ko fi solal bu ko yóbbu ca mbedd ma di ko solal kenn kooko doomi jàmbur la mbokkam jàmbur la am njuumte la jaamub yàlla bu doye di la tooñ yàlla yàlla mi mu tooñ mën naa lijjanti mbir yi yàlla moo koy jéggal jéggal nekkut ci yow ñàkk jéggal nekkut ci yow yow leen la wax yonante bi sàlla salaam dañ ko innaka laa tahdi man du yow yaay jubal nit waaye yàlla moom mooy jubal kon nag li mu war moom mooy xamle ak yeete nit ki nag doo jël la mu def njuum te nga yëkkati ko ci àdduna bi ñëpp gis ko nga jàpp ne te ikkam bi ma waxoon léegi diw nii la tudd ak tuddut woon nii loolu moom du du du bi du du lu ñi soxla li nit ñi soxla mooy mun munkar bi lan soxla nu muy deñe ak nun ciy waxe ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp waxtaan wi leen ko bëggoon a tërale sax àggul ci noonu waaye ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax doomu aadama daal na bàyyiwaat xel bàmmeelam bu ca duggee na bàyyiwaat xel boppam bàyyiwaat xel ne eh, moom ci boppam àggut defaroogut kon ku defaroogut nag da ngaa war a soññ sa bopp soññ ña nga bokkal ñu sant ñëpp gërëm ñëpp nekkoon ci caméraman bi mooy sëñ Moussa ak Fallou ki ko doon monte mooy soxna Khady Niang ki doon réalisé émission bi soxna Awa Ndiaye ñu jox jataay daje ci yeneen i jataay asalaamaaleykum wa rahmatullah